dégg nga ba tàyyi ñu naa góor gi sañ naa génn ca sëy ba waa jigéen ca sañ naa génn ca sëy ba waa génn ba nu muy demee nag moom lañ bëgg a leeral nii jàppal ne kay génn ci sëy ba ngir ne sañ na caa génn bu fekkee ne booba wéet amut jotuñu dara ñoom ñaar ak maye rek fa dox ku ne day dem rek amul dara lu cay war jëkkër ja mbaa dara doon ci sax jëkkër ja tuddoon na baatu pase itam du tax ñu ko fayloo kenn wàllu can mbaa dara su fekkee nag jigéen ja moo gis ci jëkkëram sikk soo xam ne tax na mu sañ a génn ci sëy ba waaye nag gannaaw ba jëkkër ja wéeteeg moom la door a xam sikk soo sa daal ne damay bàyyi kon jëkkër ja war na koo jox can gañ waxante woon wéet ba wéeteeg moom tax na mu war koo jox ndéem góor gee delloo jigéen ja su fekkee ne jigéen ji ci boppam mu amee sikk ba góor gi wéeteeg moom nag ba àggal door a xam sikk sa daal di ne damay génn ci sëy bi dañ koy wax ne ko da nga wéet nga ak moom da nga koy jox moom can gi mënta ñàkk boo ko joxee can gi nag nga dellu ci kilifaam gi nga xam ne moo la ko mayoon te waroon naa xam sikk si nëbb la ko moo xam bàyyee ma moo xam càmmiñam la kooka moo lay delloo yow sa can waaye mënoo ko ñàkk a jox can te nag kilifa googee nga xam ne moo maye woon muy bàyyi muy mbokk du sañ a dellu ci jigéen ji naa ko da nga may joxaat can gi su fekkee ne jigéen ji amee sikk si ba ñu maye mi ngi teew gannaaw bi jëkkër ji wéeteeg moom nag da day génn ci sëy ba daal di koy jox can dañuy wax jëkkër ji kon ne ko bu la neexee dellu ci kilifa ga maye bu la neexee dellu ci jigéen ji ñu maye woon ndax boobu ma ngay teew ba ñuy maye mën naa xamle boppam koo ci dellu ci ñoom ñaar rek na la fay bu fekkee nag daa dellu ci kilifa ga kilifa ga fay ko kilifa ga mën naa delluwaat ci jigéen ji ne ko delloo ma lu tolloog li ma fay ci can gi mu ne nag bu fekkee ne kilifa ga maye day ko sori jigéen ji mëntoo jaxasoog moom mel ne da doom yi bàyyam rek seen bàyyi bokk yoon ne ko yaa war a maye mu daal di maye moom mën naa bañ a xam dara ci sikk soosee kon bu góor gi ne yëpp na maa ngi moom waaye damay bàyyi day dellu ci jigéen ja jigéen ja delloo ko can gam ko joxoon waaye nag waaye nag buy nangu can ga itam na bàyyi jigéen ja lu tolloo gën jaaleewi can tax dañuy bañ mu doon sëy boo xam ne daray alal nga daray can demu ca la nga ko joxoon daal mën na koo nangu nangoom des gën jaaleewi can bu bàyyi ko moom bu fekkoon ne kilifa gi maye ku jege la jigéen ji waaye nag sikk soosee kat day soo xam ne li fekk wéet amul rek des ko mën a xam mel ne xooxaanu sawukaay ba lu mel noonu bu góor gi wéetee ba noppi wax ne daay génn ci sëy bi day dellu ci jigéen ji rek ba tey mu fay ko can ga waaye du mën a dellu ci kilifa googu nga xam ne moo maye ka may jigéen ji ñu ne woon bu dee kilifa gu sori mel ne doomi bàyyi bu ndaw kenn du ko topp dara ndax mën na caa bañ a xam dara la ne su fekkee ne xamoon na li xew moo ku jege jigéen ji ni ki bàyyi mayee ko ñooyee moo dañ koy daal di fayloo can nga moom kilifa gu sori googu nga xam ne kon takk-takk bi mooy rek kamaye jigéen ja jaxasoog moom jaxasoo goo xam ne sikk soosee waroon na koo xam nga xam ne kon su fekkee jaxasoowut ak jigéen ji nga xam ne mëntoo nga xam sikk soosee dañuy dellu ci jigéen ji rek mu fay alal ji waaye moom kilifa googee kenn ko fayloo maanaam kamaye jege loolu jigéen ja ak di kilifa gu sori takk-takk ba rek mooy ñu gis ne jaxasoo naa moom jaxasoo goo xam ne daal war na caa xamee sikk sa wala jaxasoowut ak moom ba mën caa xame sikk sa firnde yi ñu gis ci loolu rek ci la ñuy sukkandikoo àtte ca kamay jigéen ja bu dee kilifa gu sori goo xam daa wax ne man xawma ci woon dara jëkkal ji ne xamal na ko bu baax a baax dañ ko wax ne ko sañ ngaa waatloo kilifa gii mu waat ne li wax dëgg la xamutoon suñu waatloo kilifa googee mu waat ne xawma woon jëkkal ji du mën a taxaw naa ko yaa may fay day dellu rek moom ca soxna sa waaye nag bu kilifa googu ragalee waat dañ ko wax ne ko yow na ko waatal yow dëgëral li nga wax ne moom mi xamoon na ko booy war rek ñu wax ko léegi mu dalay fay ndax moom kon moo la wor ci moom nga war a dellu kon moo lay fay xam nga tuumaal na kilifa gi sori ne xamoon na ñu ne kilifa ga waatal ne xamoo woon kilifa ga ragal a waat ne ko yow nag waatal li nga wax ne moom mi xamoon na moom itam mu ragal a waat ñu koy wax ne kon nag kat des la jox dara ba ñu woon a waat daal ñu wax ko mu fay la waaye nag bu ragalee waat yow itam nga ragal a waat dëgëral li nga waxoon des la jox dara des ko jox dara mooy du sañ a dellu sax ca jigéen ja mu ne bu amee ku la wor ci jigéen ne la kii daal amul sikk jigéen ji takk ko amul sikk te nag moom mi la wax loolu nax la ci ba nga takk ko doonul kilifa jigéen ja te it moom ci boppam moo féetewoo maye ga moo maye te it xamalu la ne la man kat duma kilifaam bu ci sart yu dajee nga xam ne moom du kilifa ga te moo maye te it waxu la ne la man kat duma kilifaam fekk na yow itam xamoo ko ndax bu fekkee waxu la ko waaye xam nga ne moom du kilifaam it doo sañ a dellu ci moom ba ci ñetti sart yi dajee boo génn ci sëy ba ci moom mi ngay dellu moo lay delloo lépp can nga bu fekkee nag jotoon naa leeral ne man ca dëgg-dëgg du ma kilifaam gi ko yelloo maye mbaa moom ci boppam deful may ga wala bi ñu maye xamul nga ne moom mi moom ca dëgg-dëgg du kilifa jigéen ji waxu ne man du ma kilifaam dëgg-dëgg waaye yow xam nga ne du am dëgg-dëgg su boobaa kon su boobaa booy génn ci sëy bi itam doo dellu ci moom naa ko fay ma can gi doo sañ a dellu itam ci jigéen ja loolu nag daa xaw a jàppanteeg li nga weesu mooy jamono yi jaam amee daa am ku la wóor ne la jigéen ji gor la ba nga takk ko ndeke ab jaam la nekkul boroom nga takk ko nag ba am ca doom door a xam ne jaam bu jigéen la boo xam ne am na boroom nga xam ne kon sa doom joojee moom dir su ko def jaam ndax njublam jëkkaliwu la ci yaayam day def nag say jamono boo takkee jaam bu jigéenub jaambur boo ci amee doom itam kookee moom yaay ja mooy moom sa doom joojee muy ab jaamam ne yaayam waaye yow nag dañ laa nax rek ba nga takk jigéen ji defoo ne gor la te na koo ko waxee ndekete yoo jaam la nga am ca doom nag kon kookee nga xam ne moo moom jaam bu jigéen boobu da nga ko jox can kañ waxante woon ci bi ñuy fas sëy bi sa doom da nga koy téye muy gor na yow waaye nag dañuy seet bu doon jaam ñu koy xayma fu njëgam war a toll nga yëkkat lu toll noonu jox ko borom jaam bu jigéen bi kon fay nga yaar fay nga can gañ waxante woon fayaale xaymay sa doom ji léegi nag kala waroon mooy kala naxoon ne la gor la te gor da ngay dellu ci moom mu fay la can gi nga xam ne moom moom nga joxe te suñoo koo bañ waaye nag la nga fay ci sa doom ngir téye ko muy gor na yow ki la naxoon du la fayaale loola ndax dañuy jàpp ne dëgg la moo la dugal ci takk gi nga jotee jigéen ji ba am ca doom waaye nag daay sa jotee jigéen tam te doo ci am doom moo tax nag kon fay nga yaar yow can gi ak xayma yi sa doom ji te ki la naxoon nag ba dugale ci moom ba lay delloo rek can nga nga joxe ca sëy ba waaye dina jox nag xayma ji nga joxe ji mën a téye sa doom ji mu ne nag kañu nax ne ko takkal jigéen ji gor la ba mu dugg ca moom ci boppam day nekk gor mooy tax bu ca amee doom doom ja nekk gor waaye bu fekkoon ab jaam moo bëgg a takk gor ñu wax ko ne ko kii gor la ba mu takk ko ndekete ab jaam la mu am ci doom nag ndegam moom jaam la doom jam ci am itam jaam lay doon du doon gor moom mii ñu nax ci ne ko kii gor la ba mu takk ko ndekete jaam la sañ naa génn ca sëy ba sañ na caa bañ a génn bu fekkee day génn ca sëy ba moom dañuy seet kan ka ñu waxante woon ak canuk moroomam jigéen ja lu ca gën a néew rek moo koy war loolu lay war a joxe bu nee nag dama koy far téye duma génn ci sëy bi kon canuk kem lay joxe joxe waaye nag xaymee doom ja ak lu mën di am maanaam moo xam dana génn ca sëy ba moo xam du génn ca sëy ba daal moom moo xam jigéen ja ci boppam moo ko naxoon ne ko gor laa te du gor ba ab sangam moo ko ca naxoon ba ab jaamur lu ci mën doon daal bu doonee gor ñu ne ko doom ñu ci am gor lay doon faaw rek mu joxe xayma yi doom ja bi dee seet nag xaymee doom ja nu mu war a toll dañuy seet bis ba ko yoon di àtte ñu xayma ja war a toll buñu seet bis ba doom ja juddoo bu fekkee doom jooju am alal ci yooyu jamono moom baay bi mooy téye doom jaag alal ja waaye duñ ko wax ne ko da ngay joxe xaymee doom ji joxewaale alali sa doom ji déedéet mu ne sax bu fekkoon ne jàmbu jën boo ñu la nax ba nga takk ko ku mel ni sabaay da ko moom nga xam ne boo ci amee doom itam day daal di gore ndax dañ ne woon ku moom sëp sëp day daal di gore ndax ak njaam mënta dox diggante sëtut maam bu demee noonu moom mi bàyyi gone gi du fay xayma ja bàyyi bi ñu naxoon ba mu am doom ci jaam bu jigéen ba mu takkoon ñu ne ko woon baaw rek nga war a joxe xaymay doom ji ndax nga téye sa doom gor la ne yow moom ci bopp bu fekkee dafa ñàkk mbaa dafa nekkut te doom ja moom am na alal lañ war a fay te doom ja dañ ko génne ci jëmmi alali doom ja te it lu yàgg-yàgg doom ja du mën a delluwaat ci bàyyi ba ne ko lañ fayoon ci man danga ma koy delloo jamono yi bàyyi bi ñàkkee mbaa nekku fi bañ ne te doom ja amee alal ci alalam la ñuy fayee lañ war a fay lay wax ne bu fekkoon du woon benn doom ay doomi doom la kenn ku ci nekk yaay fayal sa bopp rek ci sa alal la ñuy génne la nga war a fay buñ seet ne ka man day fayaale ka mënut mbaa ka teew day fayaale ka teewut kenn ku ne rek ak boppam jëkkër ji takk jaam bu jigéen ci yooyu jamono bu ne dañ maa war rek ndax ma ne ma gor la ñu ne ko kenn naxu la ci xamoon nga ne ab jaam la du as gor da nga ko bëgg takk ko rek mu ne kon bu ma nee waar rek ne dañ ma cee naxoon ñu jàpp la mu wax ne ko wax nga dëgg bu ko neexee génn ca sëy boobee kenn ci jëkkër ji mbaa jabar ji bu amee sikk soo xam ne day tax moroom ma saña génn ca sëy ba waaye dem nañ ba góor ga fase mbaa ñoom ñaar ñëpp ñu bokk faatu mbaa kenn ko faatu te ka sañoon a génn ca sëy ba jotul woon a génn ca sëy ba kon àtt ba day mel na rek ñu doon sëy ba yàgg kenn ka faatu mbaa ñu bokk faatu mbaa góor ga fase lu mel nii bu góor ga fasee te fekk wéet am ba noppi can gu mat lay joxe bu fasee te fekk wéet amutoon it mu joxe genn wàllu can bu ca kenn faatoo nit donn nga daal di am ba tey can nga daal di war a mat ndax faat moom bu xasee am can nga daa war a mat te lii tam dañu daal di war a donante bu jigéen ji amee sikk soo xam ne bu jëkkër ja waxul ne bu mu ci am sart ko bu sañu génn ci sëy ba sépp sikk su mel noonu rek kiifag jigéen ja mën na caa bañ a wax dara bàyyi rek kay takk takk su takkee ba noppi te gënalu ko bu ko neexee fase waaye ndegam moom bokku ci sikk yee nga xam ne mooy tax kenn ka sañu génn ci sëy ba kilifag jigéen ja bu ko neexee bañ caa wax dara bàyyi noonu rek te bëgg a takk takk bu fekkee nag kooku daa sartoon ne bu ci nangam am moom bu bokku ci sikk yee itam war na koo xamal ne ko loolu nga wax ne bu mu ci am nag am na ci waaye ndegam moom bokku ci sikk yooyee taxa sañu génn ci sëy ba te it jëkkër ji néewut bu ci nangam am kilifa gi maye mën naa bañ a wax dara ci sikk soos la bàyyi rek ki takk moom takk gannaaw ba nag bu gisee sikk soos si te gën lu ko bu ko neexee fase nga xam ne kon lu mel ne gumbaag pattak luuxag làggeeg yëpp loolu kilifa jigéen ji bu jëkkër ji waxul ne bu ci loolu am mën na ne pat rek bàyyi noonu suñ ko mayee ba noppi nag mu gis ca loola te gënalu ko buñ ta muñ bu ko neexee fase bu jigéen ji amee ñaawteef woo xam ne du feeñ ci jëmm ji day mbirum baatin maanaam mbirum jikko ni ki ñàkk a maandu di dox tànki caaxaan wala muy sàcc di jël lu moomut xeet yi mel noonu moom kilifa jigéen ji day war mu nëbb loolee di ca sañ a wax dara te ñëw nag di bëgg si jigéen ja bu ne ko dégg naa ni kat nangam ak nangam jigéen ji daa maanduwut di dox tànki caaxaan mbaa muy sàcc mu ne ko ah ndegam dégg nga ko nag kon daal li ma lay laajuree mooy nga dem rek seeti keneen waaye nag du jekk di ko wax ci ñaaw ci fi jigéen ji naa ko nangam ak nangam di ko ci indil ak leeral mbaa dara nag na ko wax rek ne ko yow daal seetul keneen rek yem foofu bu fekkee nag kay bëgg si jigéen joojee waxul dara lu jëm ci lu xam ci moom ci aw ñaawteef mbaa dara moom mi kilifa ga na bàyyi noonu rek bañ caa wax dara bu dee ñàkk maandu gi mën naa am bu séy rek daal di téye boppam bàyyi ñàkk maandu ga sàcc gi itam mën naa am bu séy rek ba am ku ko yore yoral ko ay mbiram mu daal di bàyyi sàcc na ko ko may rek loolu nag wuute naag yow mi nga xam ne doonoo kilifa jigéen ja sa mbokkum julit di la laaj bëgg nga laabire ko ci jigéen ja muy bëgg a takk luy mbiram kooku moom ni ñu ko xewoon ci gannaaw day war nga laabire ko ngir yàlla wax ko lépp loo ci xam ci loo xam ne gënut bu ko tax a doon jëw bu aay ndax loolu laabire rek la xam ne kon foofu kilifa jigéen ji ci boppam wuute naag ka nga xam ne moom du kilifaam dañu sàkku ci moom rek bu laabire moom war naa wax la mu ca xam te yàlla tax daa mel ni nag bu fekkee ne jigéen joojee ñàkk nawtif woowu siiw na ci moom ba ñëpp di ko wax ñëpp xam ko kon mën naa wax rek ki ko bëgg a takk ne ko li ci am daal dégg nga ko ni ko ñëpp déggee boo bëggee takk boo bëggul nag bàyyi ñu seetlu foofu ne daa wuteeg wàllu njaay lool yow mi jaay moom la ngay jaay lool ca xam ci sikk lu mu néew néew néew war nga koo wax kay jënd dana araam ngay na bu sikk ca la ngay jaay sikk soo xam ne ki jënd bu ko xamee bàyyi du jënd mbaa lam ci mënoon a fay dana ko wàññi mbaa yaa ngi nattoo li ba xam sikk soos ay naam ayib dana araam nga di ko nëbbu jëndkat ba faw rek nga war ko koo wax ba mu leer ko sëy moom dañuy wax ne dañ ko teg ci kaw ak teralante waaye jaay moom kenn ku ne da bëgg a jël la moom dëgg-dëgg du nangoo bàyyi dara mel ne ak muusante mel ne ku ne day bëgg gën a muus moroom ma loolu la jaay di niru moo tax nag kii jaay moom dana araam mu xam ca dara ci sikk ba noppi di ko nëbbu lépp lu mu ci xam ci sikk yoo xam ne su ko koy jënd xamee bàyyi bañ a jënd mbaa di ca mën a ti njëkk gam ca mënoon moom mi jaay war na ko wax ba mu leer koy jënd bu bëggee jënd du bëggul bàyyi loolu nag yóbbut ndax ñu bëree bëri duñu ko def nga xam ne yow boo ko doon def ñu la da ngaa yëwut mbaa xanaa da ngaa bëggut a am alal jamono yi jaam amee góor bu amee jaam jigéen te yàlla na toog moom góor gi mu amee ngaana mbaa mu siti dañuy araamal ci moom muy joteeg jaamam bu jigéenam boobee daa war a faj ba wér door a jéem a joteeg moom bu doon nag ci jëkkëri jabar moom xel xalaatu ko ndax jabar ab nawle la muy jëkkër ji ñoo tolloo daraja bu jëkkër ji amee ngaana mbaa siti moom xel xalaatu di ko bàyyi muy joteeg moom jamono yi jaam amee jaam bu jigéen bu dee sëy jaam bu góor far nag yàlla may ko mu gore bu ko neexee tàggoog jaam bu góor ba ndax sëy ab jaam dafa metti te moom léegi gore na bu bëggee tàggoog moom nag day fase boppam menn pase rek bu sañ a pase boppam ñaari pase mbaa ñett benn passé rek lay fase boppam passé moo xam ne ba ina lay doon maanaam du nekk buñ mën a fayli bi tax nañu ne benn passé lay sañ a def mooy suñ ko mayee mu fase boppam ay passé yu limu gannaaw ba bu jëkkëram jooju nekkoon jaam goree ne moom dikk bëgg koo takk te fekk passé laaj jëkkër jaar fa day nekk gàllankoor bu ko neexee xëppati wax ne fase naa saa bopp bu ko neexee bañ a xëppati ne tànn naa saa bopp talaqtu nafsi ak ixtartu nafsi ak lu ko nur lu mu ci wax rek mu baax bu fekkee ne bi mu goree moom jaam bu jigéen bi te bëgg a tàggoog jëkkëram li fi nekkoon jaam fekkutoon ñu jotee dara ak may rek fa doxoon kon bu tàggoog moom day dem rek mu dem jëkkër di ko jox dara bu fekkee nag bi mu tàggoo jëkkëram jooju fekk na jëkkër ji wéet ak moom dana ko war a jox kenn gañ waxante woon mu ne bu fekkoon ne laata muy wéet ak jëkkëram joojee goreel nañu ko waaye moom nag yëgutoon ne goreel nañ ko jëkkëram daal di ñëw joteeg moom kon dañuy seet kenn kañ waxante woon ak canuk moroomam ñu wax canuk kenn lu ci ëpp rek lu ci ëpp moom la ko jëkkër ji war a jox muy ak can mu ne nag bu jaam bu jigéen boobu goree wax ne damay tàggoog sama jëkkër ji doon jaam buñ ko joxee can nga sangam ba ko moomoon bu sañ a nangu can googee lu may nag dafa sartoon ne su ma ko goree leekat buñ ko joxee can itam can gi maa ko jël mbaa sax laata mu koy goreel fekkoon na mu jëloon can nga moom boroomam boobee bu dul loolu rek bu goree mooy moom can nga kenn du ko nangoo ci moom li ne woon jaam bu jigéen buñ ko goreelee te fekk jaam bu góor yore woon ko ñuy sëy ñoom ñaar mën naa tàggoog moom la ne lu may nag daa waxal boppam ne man day gore naa waaye li ma yoon mayoon ci tàggoog sama jëkkër ji teg naa ko fee du ma tàggoog moom daay toog wéyeeg moom ci sëy bi kon gannaaw loolu du sañ a wëlbatiku ne damay far tàggoog moom wala boog gannaaw ba mu yëgee ni moom mi goreel nañ ko mu dem may jëkkëram mu joteeg moom moom daal yombalal na boppam jëkkëram ci mu joteeg moom moo xam jëkkër ja ak na ci joteeg moom moo xam àggu ci joteeg moom waaye yombalal na ko loola ba tey kon du sañ a génnati ca sëy ba doon ca sax xamutoon ne bu yombalalee boppam jëkkëram du sañ a tànnati du ca dara bu xësee yombalal boppam jëkkëram rek mu joteeg mu am ñàkk joteeg mu ñoo ci yemoo du sañ a tànnati mooy du sañ a tàggoog moom ba tey bu fekkoon ne laata muy tànn ci tàggu jëkkëram jooju ba jëkkër jo fase na ko fase moo xam ne ak fay li mënu caa topp kon mënta tànnati ndax bu mu sëy nekkatu fa ba tey bu fekkoon ne bi jaam bu jigéen bi goree laata muy seet la muy def ci tàggoog jëkkëram jooju far jëkkër ji gore ne moom du sañ a tànnati lu may nag bi jaam bu jigéen bi goree la ko tee tànn booba daa setutoon mooy daa toll woon ci gis baax te ku gis baax du mën a fase boppam loolu tax nag mu yéex a fase boppam gannaaw ba jëkkër ja gore kon gore jëkkër ja bu ko yàqal tànn ba tey ndax la ko teewoon a mën a tànn rek mooy toll gam toll woon ci gis baax mëntoon a fase boppam bu jaam bu jigéen bi goree jëkkëram joojee mën na ko yóbbu ci àttekat ba ne ko na wax li muy def moom gore na bu ko neexee tàggoog man dem bu ko neexee toog ak man damaa bëgg nag mu wax la lu mu ciy def muy su boobaa jaam bu jigéen boobu gore mën naa wax àttekat bu ne ko may ma ab diir ma seet ba xam lu ma ciy def su boobaa buñ ko mayee ab délai délai boo xam ne àttekat baa koy seet mën naa seet ba xam lu muy def day tàggoog jëkkëram jooju am day toog nekk ak moom jaam bu jigéen bi gorete fekkoon ab jaam doonoon jëkkëram la ne su nekkaatoon ak moom lu yàgg doonte sax ëpp naat bu jëkkër jane woon toog yim toog lu yàgg ànd ak man kat wane na ne daa bëgg toog ak man doon sama soxna soxna si gore bu ne déedéet dama doon seet rek waaye jotuma ñëweeg moom ci sëy bi kon lu mu yàgg-yàgg ndegam yóbbal lu fi jëkkëram jooju boppam benn yoon rek ñu ne ko wax nga dëgg mu daal di sañ a tànn génn ca sëy ba waaye nag diggante boobu kat du fi yombale li jëkkëram boppam moo xam jëkkër ja jote na ak moom moo xam jotewut ak moom ñu jàpp ne kon du sañ a tànnati